aywa euh, professeur Abdou Aziz Kassé directeur du centre international de cancérologie euh, ci Ndakaaru docteur ñu ngi leen nuyu euh, di amati mbégte di bokk ak yow plateau bi et c'est toujours un plaisir ñu lay suivre à travers les médias. maa ngi fay yi nga toogandoon fii ci biir plateau bi. Mhm. di nuyu itam seen téléspectateurs yi fu ñu nekk ci biir àdduna. très bien. aywa Chérif ñu soobu ci waxtaan bi ak euh, docteur Kassé. waaw euh, ñu fàttali ni docteur membre fondateur bu LISCA la mooy Ligue sénégalaise contre le cancer mais aussi LISTAB mooy ligue bi nga xamante ni moom la fi tax ngir xeex tuxam poon mi cigarette. bu euh, ñu waxoon ndax jëlee ko fi sax mais ñu wàññi ko cigarette boobu sax moo tax quand ñu bëgg cee taxaw parce que dafa am ay loi yoo xamante ni voté woon nañu ko fii Sénégal ngir sax dèjà tere ko ci yenn barab yi. boîte bi aussi ñu def ci ay publicité yoo xamante xëy nit ngir nit ñi wala tuxkat yi daw mooy ci paquet bi nga xamante ni gaa yi xam nañ ko bu baax euh, moxikatu pon yi euh, am na nag gouvernement bees boo xamante ni am na fi moo tax ñu bëggoon a évaluer loi bi ak conséquences yi nga xamante ni tux mi ngi koy def ci wàllu wér-gu-yaram euh, ba léegi fu ngeen jàpp ni xeex bi fa la toll docteur jërëjëf tox ci àdduna bi ma ngay wàññeeku ci réew ya nga xam ni jël nañ matuwaay ya boo demee France nga dem Amérique nga dem pays occidentaux yépp tox ngi wàññeeku comme ma ngay wàññeeku foofa ñooñu daal ne ay cëleen ñu dem ci dëkk ya nga xam ni ñoom kat jàpp nañ ni matuwaay ya ca war jëluñu ko loolu mooy Afrique rax ci dolli Afrique dafa bari ay xale xale yooyu boo leen naxee ba dugal leen ci biir yëf yi lu bari ngay am ci alal mm-hmm. kon looloo taxoon ñëpp daal di daw wàll si ñëw Afrique ba ñëwee Afrique nag mu am benn convention bu ñuy wax convention cadre. Mhm. organisation mondiale de la santé taxawal ko ne yoon waa ngi nii nii lañ koy defee. Sénégal daal di dem ratifié ko ñu nag ñoo gën a gaaw ci ratifié lu gën ratifié ko ñëw yanu yóbbu assemblée nationale ñu voté léegi nag mu des loi ma ñëw taxaw 2012 ci campagne présidentielle ba woon. Mhm. ne leen nañu jóg ci yëf yi waaw ku ci jóg nag man dinaa wax askan wi ni yow mii yaa fi def lii yaa fi def la kenn tontu. Hmm. ca candidat yow kenn. menn Macky Sall moo yónni woon Diène Farba Sarr ca man ñëw ne ko boo demee neel sa waajooy man bis bu ñu ma falee dina am loi bañ ko falee mu yónnee Moustapha Diakhaté hmm. député mu nekkoon président groupe parlementaire président groupe parlementaire Benno Bokk Yaakaar waaye daal di ñëw ànd ak man ñu dem seeti Awa Marie Coll Seck mhm. ñu di tëgg loi tëgg loi boobu loi ba muñ ko mujj voté 2014 mhm. gis nga loi boobu juróomi ponk la am na 10 ponk bi moo noonu képp koo xam ne kii jaaykatum pon nga doo duggati ci suñu biir gouvernement di ñu jéem a digtal li ñu war a doxale yëf mhm. xam nga kooku yanu na maanaam waa léegi yow laa wan amatul benn compagnie tabac buy dugg ci benn gouvernement yu Sénégal wala administration sénégalaise ne leen fi ngeen di jaar ni ngeen koy doxal hmm. ñaareel fu pon daan jare cent francs xoolal léegi dama bëgg nga xool paquet yi ñaata la ñuy jar paquet yaa ngi ci ay 600 yeeg lu toll lu ni mel kon wax dëgg yàlla yëf yokk na hmm. mais mënoon nañ ko gën a yokkati parce que boo ko xoolaatee njëgu paquet bi 25 pour cent yi mooy de Sénégal ci alal soixante quinze pour cent yi ku ko moom kay defar pôle ak ka koy jaay kon xam nga ci dëkk euh, tubaab bi tey ji soixante quinze pour cent yu xaalis booba ma ngay dugg si ci biir gouvernement ci biir keesu trésor vingt cinq pour cent yi des mm. ca jaaykatum pôle ak ka koy defar mm. te loolu boo ko defee sëñ bi nga daal di am lu bari loo xam ne nii mën nga ko dugalaat nag ci biir benn système assurance maladie universelle nga xam ni képp kuy fajoo ci Sénégal mën cee jariñoo hmm. kon xam nga ñaareelu poñ boobu dëgg la yokk nañu taxes yi waaye mënoon nañ ko gën a yokk parce que ñun dañoo jël rek ni UEMOA la ñu bokk ñu jël plafond yu taxation yi hmm. UEMOA 45 pour cent hmm. yamale ko te ñun CEDEAO tamit ci lañ bokk amul plafond mën nga dem ba 125 pour cent mbaa leneen lan moo ñu ko teree def. Hmm, d'accord léegi. ñetteelu poñ. justement continué waa ci juróomi poñ yooyu. ñetteelu poñ bi mooy lan. toxkat yi dañ la naan damay tox ndax lii mbaa leneen ak dañuy fen leen di tax dañ leen di nax. ci publicité. Hmm. ci promotion ak ci parrainage. waaw léegi dama bëgg nga wax ma ndax Dakar fii gisati nga fi panneau publicitaire. boo xam ne bi day wane toxkat wala cigarette amatul. ñeenteelu poñ bi. Hmm. garab sax boo ko dee jënd bu fekkente ne dafa am ay jeexital dañ la koy bindal ci paquet bi. Hmm. kii boo ko dee jël doo nelaw da def nii da lay def nale waaye yow ñoom ñu daal di fab rek paquet bi daal di fab ca boor ba bind ci mbind mu ndaw. abi dangereux te lu hmm. abi bee dangereux xam nga lu dangereux. njariñoo ko moo ko mooy dangereux. ñu ne nag léegi nañ ci def ay nataal nataal yu rëy. yoo xam ni day occupé ñaari phase su 65 pour cent yu paquet bi ñu daal di koy euh, def en couleur muy couleur boo xam ni bi mënut a deñ rax ci dolli ñu def ci ay messages yu pertinents ban di bind abus dangereux mm-hmm. nañu bind le tabac rend impuissant ndaxte 35 pour cent ñi nga xam ne ñu dañoo tële tey jii nii mm-hmm. pour na leen ko yóbbee 35 pour cent 35 pour cent. fanweer ak juróomi nit ci téeméer yu ne yoo xam ni dañoo tële pour moo leen ko yóbbee. te ay nag du yam ci boppi borom. toxkat baa ngay rey ku dul tox. tey jii ci àdduna juróom ñetti million nit ña ngay dee. Mhm. ndax toxkat yi juróom ñetti million ci adduna bi. Mhm. waaw xam ngeen luy si. moom moom la ñuy fumeur passif. waaw fumeur passif. xam ngeen lan lay kii di rey. Euh, ni ñu koy waxee ci. sibiru euh, euh, sibiru paludisme 400000. toxkat yi li ñuy rey moo ëpp li sibiru di rey. Hmm. waaw ñu ne la xam ne seen yoon jël juróom juróomeelu ponk boobu ñu daal di tere tox képp koo xam ni kii yaa ngi dugg foo xam ni fii nit dafay dugg wala nit dafay nekk. Hmm. ministre la santé ba fa nekkoon ci jamono yooyu xeex ak ñun ci loolu ba tëdd ci suuf. nga du am mi ngi mel ni nga ni tey jii. dama am sama piscine fii daal di def benn rëdd ci digg bi ne fii mënees na fee saw waaye fa ca des mënees faa saw kooku yan na mat maanaam ñu am ay espace fumeur espace fumeur loolu moo warututa am fenn ah, ci biir dëkk bi ah bon kon kay mooy nan fi tere tox benn yoon rek ku bëgg a tox parce que ku dem restaurant wala nga dem ci yenn bërëb da nga gis ñu ne fii waaw espace boo hmm. xam nga lan lay indi ña fa nekk yaa ngi leen di toxlu man mii week-end bu hmm. bi ma jëlee foofu dama mujj dem consultation hôpital principal. tey ji dama war a dem ñu defal ma spirométrie ndaxte fa ma toogoon. da ngaa xëy joxeet gi. ma nit ñaa nga fay toog. di muqi waaw. Euh, euh, saxaar bi génn ci chicha bi tamit bokk na ci euh, fumeur passif yi parce que. Dakar da ngay dugg ci yenn restaurant yoo xamee ni. Mm-hmm. Euh, wax dëgg fa yàlla si saxaar ngay lekkee de. sooy lekk dañuy bind foofu kooku mooy ponk bi nga xam ne bii moom moo ca topp gis ngeen chicha moo yées hmm? fukki yoon pour cigare ah. benn session yi chicha nga toog nii daal di def sa chicha ba mu jeex gën googu ñu la tegal hmm. mu ngi mel nga tox ñaar fukk ba ci téeméeri paquet waxuma la téeméeri kii euh, téeméeri cigarette ñaar fukk ba ci téeméeri cigarette aujourd'hui chicha boobu loi bi nga xam ni moom la Sénégal teg da koy tere parce que arôme yi ñu ciy def dañu tere ci loi bi ku fiy def ay arôme xam nga ndax fàttaliku nga euh, paquet siga përu ba ñu daan tuddee Amsterdam. mu neexal xet goo xam ne gii. doo ko mosaan sa laay walaay am naa grand bu xam ne daan damay toog seen dégg nga rax ci dolli chicha bii fañ koy defe xam nga ñan lañ fay nattu xale yi. Hmm. demal nga ci ci bar restaurant bi nekk. booru école franco-sénégalaise bi nekk fii. Jean Mermoz. munoo imaginer xale yu ndaw yi ñëw di dugg ci biir. Chicha Bar. demal centre culturel français te semaine passée lañu ma ko dee. Hmm. ne ma ca kaw dafa am Chicha Bar bu fa nekk yéen ngeen defe ni loolu yam na maan. docteur alors ba ñu defee loolu. mu hmm. am koo xam ni kii wax dëgg yàlla borom xam-xam la ci lépp lu jëm ci diini. député Talla kooka daal di jóg nañu waa comme yéen ñemewu leen a tere pon ci àdduna bi ñun ñi nga xam ne ñi ñun ñoo nekk ci euh, cité religieuse yi dañu bëgg ñu tere pon fépp foo xam ni fii cité religieuse njëkkee ko de député kan 1886 Limamoulaye Almadi ñaareelu recommandation ba mu joxewoon benn ba mooy sibalal sa yaram lépp lu xeetoo kumpoon hmm. ba mu ca pare ñeenti at ya ca topp amari ndaat sekk def lu ni mel wax lu ni mel ba mu ca pare alaaji Malick waxati lu ni mel ba mu pare sëñ Abdoul Ahad def lu ni mel ah Touba moom waaw araam na fa moom ngay xam nga yëf yi du question rek la nga xam ni moom lay sax di gaañ ci ñenn ñi royukaay bi muy doon ci xale yi. mag muy nekk Touba naan ma ngay làqatu di dox ak di géej kati kati dootul doon royukaayu xale yi. waaye ka nga xam ni kii ma nga toog yore jëmmam yore darajaam ak yooyu di toog ci kanamu xale yi kooku royukaay lay daal di doon kon tere ko ci biir cité religieuse yi. am solo la ci yëf yi. alors docteur léegi nag dafa am lu dugg si ci yëf yi lu ci xet lu ci rax. Hmm. yaakaar sigaret yi xool nañ dangay ngay dafa ngi wàññeeku ci àdduna bi. Mhm. léegi ñu ne kaay leen ñu wut beneeni i jumtukaay wala yeneeni i jumtukaay yoo xam ni moom lañuy ñuy dugale nit ñi ñu bañ a génn. électronique. mooy cigarette électronique. Mhm. ñu defar ko def ci ay puuf yu ndaw di ko jox xale yi di leen ko jaay ci njëg bu doy waar bu ko defee xale yi ca ba ñuy ndaw. Mhm. lañuy ñuy tàmbalee di tàmmal seen yaram nicotine. waaye comme appareil boobu la mu lay jox ci nicotine du doy. Mhm. bis boo mosee cigarette kontaan. kon technique commerciale la boo xam ne bii dañ koy def. 26 mhm. millions yu personnes ñoom ñoo laaj daaw agrément pour autorisation sur le marché États-Unis xam nga ñaata la leen Amérique jox. 23. Mhm. 23 autorisations de mise sur le marché donc vingt 26 million ak tegal la ñu sànni fële ci biir ndax ay contrôle yu wane ni lii jaarul yoon waaye yow nga defee ni Sénégal am na boobu yooyu jumtukaay Sénégal mënu ko kon xam nga lay pexe. Hmm. cigarette électronique bu mu fi dugg. tëgg nañ nag loi bu bees boo xam ne bii day mottili loi ba nga xam ni moom la. bu 2014 bi. waaw bu 2014 liggéeyaat dañ teg ñëpp en 2024. ma nga ci biir secrétariat général du gouvernement circularisé woon nañ ko yëpp ministère ku ci nekk daal di ciy dugal la nga war a dugal. lu ci bees ci loi boobu. la ca bees mooy tere nañu lépp loo xam ne ni moom mooy xeetu tox ci biir foo xam ni fii ay nit a nga fa ñoom. lieu public. lieu public rax ci dolli la ca bees nañ yokk taxi la ca beesati mooy ni dinañu def ay rotation yu image yi nga xam ni parce que nit ki bu demee ba tàmm image bi nga def ci paquet bi. dootu ko defati dara. waaye boo dee def rotation yu image yi dana indi ci beneenu coppite. mais docteur tere na ñu tam chicha ci biir. Sénégal Sénégal. Ah, ndaxte chicha bi leneen da cee rax. gis ngeen Mali ña nga xam ni ñooy jihadiste yi. loolu bokk na ci li leen di jox alal tey jii Mali kenn ñemewu faa génn waxuma la chicha waaye gënn gi sax boo génnee ñu jàpp la kon gis ngeen xeex bi dafa mujj soppeeku ci leneen te loolu li ko fi indi ñaari société ay société turque ak ay société libanaise ñoom ñooy jéem a dugal di dugal yëf yi fii ci biir dëkk bi. Hmm. loolu nag moo war a dakk tey jii. alors docteur ci wàllu wér-gu-yaram. Euh, surtout parce que nit ñi il faut ñu xam njeexital bi tuxum cigarette am ci seen wér-gu-yaram léegi rek laal nga ci benn ponk muy wàllu tële ci wàllu góor mm. wa gis nañ ni 48 pour cent des hommes ñoom ñooy tox 7 pour ah 35 pour cent ñi ngi wax 7 pour cent ci wàllu jigéen ñeeg lu ni mel euh, ban njeexital la am ci wér-gu-yaramu ku góor ak ku jigéen yi tamit ban wér ban njeexital la ci am am na lu ñu bokk am na lu ñu bokkul maanaam ci wàllu feebar ban feebar la law cigarette war a indi cigarette ñetti yëf lay def. benn cigarette day rey ñaar cigarette day joxe ay jàngoro. ñetti cigarette day bàyyi ay laagoo ci nit ki. foo xalaat ci yaramu nit ki la ko départ ca karaw ba ca weeree ca suuf foo ca xalaat rek cigarette nga fay ñuy jeexital waaye jeexital yi nga xam ni moom moo yi gën a fës dadul li nit ñi xalaat. xam nga ñu bari dañ naan la cancer du poumon cancer de la gorge cancer de ci cancer de lii cancer de lële. duggal ci biir njur njurukaay muy góor gi gis nga ndoxu góor buy tox wala bu ñuy toxat ndox ma day wàññeeku qualité bi day wàññeeku wala am doom xam nga day daal di jafe ca kay toxat ka ñuy toxat ca jigéen même chose day tax njurukaay wàññeeku njur wàññeeku rax ci dolli bu la yàlla mayee doom sax day indi ay prématuré ay avortement spontané day indi ay hémorragie de la délivrance nga xam ni boo dee aussi nag boo dee. kon wax dëgg yàlla man damaa gisul ci yaramu nit benn benn yëf boo xam ne bii njariñ la ci am. loolu fenn leer na bi nag maanaam ay soxna yu muq yi comme góor ñi loolu am na njeexital ci seen wér gu man ni la sëriñ bi kooku technique commercial la woon. bu njëkk cigarette homme fort bu njëkk cigarette soldat. bu njëkk cigarette sportif. cowboy Marlboro et cetera. Ah, gauloise la cigarette daal di defar cigarette yu bakkane rafet weex sew am ay dorure mu mel ni parure jigéen ñi di ko jël jigéen ñi bëgg ñoom itam conquérir seen place ci société. Mhm. rax ci dolli kon léegi jigéen ñi daal di cay ba pare nag. ñu def ci nag communication bu pakkane boo xam ne bi dañuy wane jigéen ñu rafet ay artistes ay euh, défilé de mode ak affaire yu mel njëcc gën a rafet ñu wane leen ñuy dox ci bépp xeetu nit ku weex ku ñuul chinois ak yooyu mais bu ko defee jigéen ñi daal defe ni kat yëf yi fii la nekk daal di cay dugg loolu yëpp c'est des cibles yoo xam ni moom moo tax ñu nax nit ñi ba dugal leen ci wax dëgg yàlla. dama gisul lii lu mu yokk ci réew mi 22 milliards de dinañ ko jot ci ay taxes waaye nag jaaykatum pon mi dinañu fi bàyyil ay jeexital yoo xam ni xam nga ñaata lañ koy faje 105 hmm. milliards pour faj le pon di wàññi fii ci biir dëkk bi hmm. ay sëñ boo jëlee 22 milliards daal hmm. dara dara boo yokkoon taxes yi nag léegi ne waa ji doo jël cent pour soixante quinze pour cent man nguur man maay jël soixante quinze pour cent yow vingt cinq pour cent soixante quinze pour cent yooyu ceey boo ko defoon ci askan yi def ci loo xam ne nii dama koy def assurance boo xam ne bii képp koo xam ni kii dafay faju dootoo demati di ñu lay laaj ay dërëm ak ñaar dërëm ndax lépp ci taxation mm-hmm. taxation bu bees docteur euh, sànq yaa ngi wax ci euh, tere yi ñu tere par exemple tux ci ay euh, lieu public ak yu mel noonu yenn bërëb yi pardon mais mm-hmm. da ngay gis tey ñu bind fenn ne dañuy tere ku fi tux nga gis ñu affiche ko tuxkat bi ñëw toog daal di taal cigarette am parfois sax nga jël oto di def sa ay course ki koy dawal day taal cigarette am donc loolu ñàkk day mel ni comme si amut lu génn lu koy tere cest à ñi ñu ko waroon respecté respecté wuñ ko sanction yi ci waroon topp topp ci pour man euh, génne euh, teg loi tëral ay loi c'est bien mais tegi daan aussi c'est bien naka la ñu war a gën a mën a organiser ba gars yi gën ci bàyyi xel bañ ma ko waxee ca jamono yooyu mu am benn fonctionnaire bu màgget bu nekkoon ministère la sa ministère des finances woo ma ne ma xam nga nooy def ma ne ko wax mu ne ma neer képp kuy tox temps lañ la war a daan boo demee tribunal waaye boo nangoo joxee junni mu ñu defar la contravention spéciale ñi nga dem sa yoon bañ ko defee xam nga fagoon nañ ni loolu kat mooy solution. Mhm. ndekete ticket junni am ci contravention ticket 6000 ak 3000 mu am foofu lañ njëkk a defee erreur. ñaareelu poñ bi ndekete ñoom ña ngay taxé démb am na ku ma ni euh, plus de 210 million par an lay police di jëlee ci taxation yu cigarette loolu xam nga kon démb la xam ci suba. Mhm. waaye léegi bu fekkente ne ñëw nga ne dama koy daal di defal ay ticket yu yi ku fi tooxati jo joxe seen defe naa ne gaa yi nañ bàyyi taxi yeeg car rapide yi daal di dàqee cigarette si toxkat ndax lañ ca mën a jëlee ci taxe ak affaire ba mm. mm. ñaareel ba ka nga xam ni kii dafa yore restaurant nit ñëw di fa tox mu bàyyi ko mu tox ko foofu yow da nga koy daan ci biir ci lawaa bi de li ñu ci wax deux cent mille francs CFA bu ko defaatee mën na dem ba ñu egg ci tëj mm. te loolu yëpp mi ngi ci loi 2014 bi application yu disposition boobu mooy suñu problème. kon yéen a ngi xaar ci nouvelles autorités justement ci aw bon non sa waxuma sa application mais ñu voté waat loi bi ngi renforcer. bu bu 2014 ca la ñu jëm wax dëgg yàlla ñi ngi waxtaan ak ñëpp ñi ngi dugg ci ñëpp di leen ci yee di leen ci euh, daal euh, pousser pour que ñu jël yëf yi en main. Mm-hmm. ndaxte yëf yi li mu yàq bari li mu yàq ci économie bari na la mu yàq ci kër gi bari na la mu yàq ci nit ñi bari na li mu yàqal réew mi bari na. am na lien ak sa spécialité ci médecine muy cancer. tey jii boo jëlee téeméeri nit yu am cancer fanweer yaak ñett bépp xeetu pon moo leen ko yónnee yaa xam da nga koy lokk yaa xam danga koy tox yaa xam da nga koy sàqami yaa xam noo koy defee. 33 pour cent tey boo ko fi jëlee woon mi na mel ni nga ni effacé naa. 33 pour cent yu cancer ci biir bët yi. te cancer mi ngi lor li waa réewam la. tey jii cancer dem na ba ma koy wax booba ak léegi 40 ans maa ngi tàmbali RTS ak Amadou Mbaye Lo ak euh, Jo Sané Gaston fay ak ñeneen ak ñeneen ñu nekk ci yëf di def gis nga tey jii toll nañ sur le plan économique foo xam ni fii kër gu mu dugg di nga miraas ka feebar miraas yi mbokkam te wóorul dinañ wér. yéen ñi fii ci plateau télévision bi xam ngeen ci kon tey jii cancer xeex cancer dootul rek problème médical c'est un problème médico-économique parce que képp koo gis mu dee ak mm-hmm. quarante quarante cinq ans fukki nit ak juróom-ñaaral bi doon tax taxaw ci ginnaawam di xaar mu dimbale la koo ci gaañ rek ci gaañu rek mu am njàqare ju rëy di dugg ci biir kër gi cancer dootul problème mu santé c'est devenu un problème médico-économique xeex ko nag du ne rek ay ca ñu daal di teg jumtukaay ya nga xam ni ñoo ci war. Hmm. gis nga jëlal infrastructure yi am ci àdduna bi yëpp nga teg ko fii ci santé ña nga xam ni ñoo ko soxla suñ ko mënut a jënd amul benn njariñ. fexeel ba ñooñu ñu am assurance maladie boo xam ni bii dootuñu fayati dërëm bu ñu koy indi xam nga dërëm boobu fan laa ko mën a jël mhm. maa ngi koy jëlee ci bépp xeetum pot maa ngi koy jëlee ñaaree ci bépp xeetu sàngara bu mu ci mënti doon mhm. koy jëlee ci la nga xam ni mooy feebar nit ñi tey jii di leen jox AVC di leen jox maladie cardiovasculaire di leen jox yeneen ak yeneen i feebar suukar diw ak xorom ceey boo taxee paquet suukar bi nga gis suba dëkk bépp lakk nga taxe diw suba dëkk bépp lakk nga taxe xorom suba dëkk bépp lakk xam nga nooy def mhm. dugal ci bitik xoolal boutique booba nga xool la fa nekk lépp boo ci laal am na suukar am na diw wala am na xorom jël ci dërëm mhm, dërëm mhm. xam nga en hypothèse basse loolu ñaata la ma laa ko calculer mille trois cent quatre vingt milliards par an góor gi boo jëlee loolu boole ci cigarette boole ci sangara si. di nga financé. nga woo léegi nii compagnie assurance sénégalaise yi ne leen bëggatuma benn sénégalais jël ci sama infrastructure yi dara naan da ciy faju te di fay un franc. di defal waxuma couverture maladie couverture sanitaire lañ moom la Diomaye wax dans son projet. dama ni assurance santé universelle. Hmm. ah c'est différent y a hmm. bu ko defee. tey jii ministère de la santé branche maladie bi daal di koy teggeeku nga jox ko système assurantiel bi wax léegi ministère la santé doon ministère de la santé ba mu waroon a doon di tere nit ñi ñu tombe malade tey jii boo amee 1000 personnes yoo xam ne ñu ngi fi ñaata ci feebar 50 100 900 a ngi toog ñuy tege dara jotagu leen ñooñu boo leen aarul. Hmm, ñuy ñëw mooy prévention bi insister sur la prévention. donc prévention day am solo dépistage day am solo ak yeneen ak yeneen ak yeneen lu ko mën a def ci assurance santé universelle. ci jamono ji sax euh, docteur euh, fële ca Angleterre ñu ngi voté benn projet de loi boo xam ni dañuy def interdiction à vie pour les jeunes de moins de quinze ans ñu interdire leen tabac. est-ce que yéen également amu leen benn genre plaidoyer boo leen mën a def euh, le ministre de la santé bu bees bi ak les nouvelles autorités ñu jël ay mesures yoo xam ni day euh, inciter un peu ñu interdire parce que 75 pour cent euh, des jeunes au Sénégal son âgés de moins de 35 ans selon l'ANSD je pense c'est important ngeen def plaidoyer boobu au niveau du ministère de la santé pour ñu jéem a seet yan mesures la ñuy jël pour interdire yenn jeunes yi fléau bi la ñu waajal ci plaidoyer xajul ci émission bi tey. gën bind naa yónnee naa ndaw ni ministre de la santé nañu recevoir ñu expliqué ko li nga xam ni moom la ñuy wax lépp waxuñu rek ci cancer léegi ci maladie non transmissible mooy cancer mooy diabète mooy insuffisance rénale mooy maladie cardiovasculaire ak yeneen ak yeneen gis nga maladie yooyu ñoo bokk banqaas ba ñu taxaw koo ci jéem a aar aar ña ca des tey jii yéen gis ngeen ko yéen seen bopp te ngeen seen bopp bu njëkk AVC xam nga fan la daan tàmbalee cinquante soixante ans. léegi xale yi la jël léegi xale yi. xale yi 30 ans wallaay dañuy AVC. ak ay malaise. ay malaise maladie cardiaque rénale mhm. ay hypertension li ëpp ci sénégalais yi ñu ngi ci amee hypertension. ñu ci bari xam ne ni ña ngi ci hypertension. Mhm. ceeb li nekk ci biir dëkk bi ci jabet kenn mënu la wax nu mu toll ak la muy yàq. gis nga yooyu yëpp mën nga ko booleendoo dal di aar nit ñi dans le même package xeex bi des na de. Hmm. lu bare bare bare moo tax semaine bële ñu daje ak journaliste en santé yëpp ne leen dañoo bëgg ngeen ñëw ci yëf parce que nag jusque là Abdou Aziz Kassé ngeen di gis ak boppam bu weex bii te ma ngay waaj a retraité di retraité naa armée. Hmm. retraité naa université Cheikh Anta damay dem Tamba bàyyi ji de. bàyyi leen ko bàyyi banaana il faut que ñu wut ay acteurs yu bees. yoo xam ni dañuy ñëw dugg ci yëf yi. université Hampâté Bâ maa ngi fay jéem a taxawal benn diplôme boo xam ne dañuy former des acteurs la lutte contre le xam nga ñaata lañ ci am ci Sénégal ñaar acteurs de waaye. ñaata ñëpp ay acteurs la yoo xam ne ñu ñoo leen doon former di leen dugal ci yëf yi. waaye duñ la ci wax lii ñu lay wax nii. ñu leen di former université war na am ay spécialiste ay tabacol am na ah? jéem naa ko université Cheikh Anta Diop jàllul ndax problème faculté de médecine war na mun a am ñooñu. ma ni la dugal nañ ci loolu dugal nañ benn DU boo xam ne bii man ak Ablaye Samb ñoo ko jàngale pendant un an ou xam nga ko doon fay man Abdou Aziz Kassé maa doon dugal sama xaalis ci biir xam nga dinañ toll foo xam ni fii nag sa xaalisu bopp nag dootul doy pour il faut que askan wi dugal ci alalam askan wi ko ko fi yore gouvernement ak ministère ñooñu ñoo yore fi xam naa ni ne bis bu may wax damay ànd ak euh, sama xol mooy wax. Hmm. ça parce que dafa mel ni nga xam ni lii mooy gaañ askan wi nga toog daal di. da ngaa jàppal est-ce que ngi lay déglu. <laughs> parce que quand même depuis 40 ans yaa ngi ci combat bi. fa mel ni nit ñi dangay wax mais day. mooy prêcher dans le désert comme on vingt 82 pour cent des sénégalais xam nañ ni. Mm-hmm. cigarette baaxul day rey. ANSD moo ko wax ci mm-hmm. enquête ba mu defoon. Mm-hmm. c'est que def di drogue boo xam ne bii kenn mënu laa wax la nekk ci biir. 7000 substances ñoo nekk ci biir. boo dee feral nit ci alcool benn molécule nga koy feral boo dee jéem a feral nit ci cigarette. 4000 molécule ngay jéem a dindi ci yaramam di ko ci fer ndax xam nga kooku dootul yomb mm-hmm. kon loolooy coow li ñaxas a dugg ci biir yëf yi joxe seen baram ba mu jàppale mm-hmm. Mm-hmm. téeméer boo jël ñaar fukk ak benn ñoo ci mujj bàyyi ña ca des ñoom dañuy dem xam nga ñaata tox ñoom kat ñoo nekk Sénégal 600 000 600 000 Voilà. Le tabac est la seule substance qui est utilisée comme le dit le producteur tue la mu moitié des utilisateurs. Il y a 300 000 Sénégalais qui sont menacés de mort dans 25 ans. ah ci leen ñu dem. docteur dee boobu ngay wax sax sur le euh, ci wàllu euh, xaw ma ndax c'est vérifié wala déet dañuy wax di yow mi nga xam ne sax da nga faatu. dañuy gis ni dafa am substance yuy génn ci sa yaram ba tabac doo ko dugaale ci biir bàmmeel loolu scientifiquement aussi est-ce que c'est vérifié. man waaw dégg naa ñaa ngi koy wax. waaw dégg naa daal boo gaañoo moom dafa am lu ñuul luy génn sa yaram bu dee toxkat la woon ci sa yaram yépp lu ñuul cëmpoon ak et dafay wàll génn. Mhm. balaa ñu lay denc. Euh, docteur euh, wax aussi ci. cancer ak euh, phénomène bi nga xamee ni nemmeeku nañ ko temps je pense que cette semaine on en a parlé dans Info Matin muy euh, dépigmentation bi ñuy wax euh, ak ravage yi nga xamee ni mi ngi koy def ci xale yu jigéen yi. actuellement la c'est quoi lan moo koy def der bi ñuy yàq la wala produit moom mooy am ay substances yu toxiques yoo xamee ni mooy moo koy attaqué ba ñu mën a jëlee fa cancer. juillet booba étudiant élève laa woon Euh, classe de première jël terminal avant may dugg armée ñaari conférence ya ma def Tamba benn bi mooy xeesal ba ca des moom mooy pôle naka la ñuy aare nit ñi ci bu njëkk nag la ma gisoon ci xeesal mooy jigéen ña nekk France xam nga lu ñuy def dañoo bëgg a bronzer parce que seen teint teint bu weex boobu neexu leen nit ñi nekk fii ñoom itam seen teint bu ñuul bi bari na ñoo xam ne ñi gënoonu leen donc ñoom ñëpp dañoo bëgg a nuru tuuti métissage tubaab yi arrivé nañ régler problème bi en mettant des crèmes écran solaire ñun nag ñoo defarul la nga xam ne ni moom la nit mën a xeese sàngaañ boppam bu njëkk nag saabu la woon ay life booy rek ñoom ñu seet ñu toog ba mu yàgg gars yi dugal yi ñu toog ba mu yàgg ñu ne hydroquinone waaye man li ma gis léegi nii. Mm-hmm. wax dëgg yàlla man xaw ma loolu la mm-hmm. pourquoi parce que da ngay gis koo xam ni kii day xeesal ba weex. tàll mhm. doo gis benn point noir fenn muy affaire bu gaaw boo xam ne bi mhm. xawma lan la mais loolu lii ñëw fii ci biir dëkk bii mhm. bu ñu ci jógul damay ragal ni dañ ci am mbetteel man nag wax dëgg yàlla mënuma continuer yëpp xob bépp combat loolu am na ndaw suñuy wax professeur lii moo ci def waaw ñoo na fi bëri te dem bu fi waaw publicité je kooku mat la déglu parce que li mu leen di wax lu mu xam la parce que yàgg na. Hmm. pratiquement ñaar fukki at ak tegal mi ngi ci biir. man nag xëy na maa ngi ci yëf yi depuis 40 ans waaye nag wax dëgg yàlla yenn saa yi nag ma jéem a décrocher ay wagon. Hmm. bokk na ci wagon yooyu xeesal parce que am nañu ko mën nañ ko def. Hmm. nañ ci wax. mais def ci wax ci jot na. balaa mu ëppi la. ñun ñëpp war nañ cee wax. sensibilisation bi mooy cheikh mi du tox man mii du ma tox faati mii du tox euh, nu mu tuddati mortala mii du tox shérif moom nga jeex koor loolu du tox pël bi xaw ma day toxam du tox nag parce que moom âge toxoo voilà kon nag ñun ñii fi nekk kenn du ci tox man gëm naa ni toxkat yaa ngi wàññeeku mais xam nga li ma gëm toxkat yi dañuy gën di jeune parce que leen nax de. ci suuf mooy école yi rek bari na fa am les adolescents. nag mois de mais moom lycée Limamou Laye laa jëm. ma fay jógee gone leen wax ñu <laughs> ngi te ñu ngi seetaan wooyu te nga fekk leen fi mu nekk aussi TikTok yaa ngi ci yooyu yaa ngi ci réseaux sociaux yi mbaa parce que xale yi fa la nekk di fekk leen fa tamit dimbali leen waaw kay fu demal TikTok ak problème bi mooy koppar amuñu koppar ya ca war tey boo jëloon amuloon naa am xanaa ay subvention yu jóge ci mel ni ndagg daanañu dimbali mm-hmm. Euh, campaign for tobacco free kids ñu dimbale euh, ACBF African Capacity Building Foundation daanañu dimbale waaye man Abdoul Aziz Kassé mii toog ak yow la ma ci def ci alal moo ëpp la ca ñoom ñëpp def ci alal hmm. ba ma ci tàmbale tey jii kon méttal loolu nag day dakk parce que man itam. léegi hmm. mais a rien de personnel entre vous ak les industries di tabac ba tax nga xi nga nga sóobu ci xeex bi walla hmm. sëñ bi man sama baay Tamba la nekkoon. Hmm. commerçant la fa woon bokkoon na ci les cent fortunes du Sénégal. dafa toogal benn bis boppam temps boobu commencé gu sax jàng euh, médecine. daal di arrêté na jaayatul pom ñi nekk ci télévision bi ñu ngi may dégg ñu ngi may gis. Hmm. man mi ci sama bopp tox naa. waaw daa nga ko foyee. tox naa foyee naa ko de 1975 à 1989 bi ma nekkee armée d'accord. waaye bis ba ma toogee en 1989 gis ni kii. Mhm. njaam lii ma gis ni amul benn njariñ laa ko wàcc benn midi. Mhm. laa toog daal di fab cigarette teg ko. yaa ko sa bopp demoo ci sëriñ ñaan loo comme ni yi di def. fab euh, nu ñu koy waxee ci gën ga ma daan toog teg fa cigare yi ña ci biir frigo ba tey bis bu nekk ma leen di xool ñu may xool. Mhm. nañu xam. soxlawul accompagnement maanaam ku bëgg bàyyi te nga accro woon soxlawul ñu dimbal ngay bàyyi ndànk-ndànk di mos par an. pour cent ñooy commencé woon naa ko fi clinique des mamelles maa koy continuer fii ci centre bi waaye boo jëlee téeméeri nit ñu ñëw pour ñu dimbale leen. Hmm. ñaar fukk ak benn ñooy mujj bàyyi. très bien. juróom-ñetti fukk yëpp dañu daan wax ci biir bi. loolu yëpp si biir yëf daal wax dëgg yàlla xam nga leen rek. Ah. bul jox sa loxo. Hmm. bul mos. bul mos bul mos. day màtteem du màtte bu ci dugal sa loxo. <laughs> voilà c'est. Euh, ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax euh, euh, professeur ñu jàpp rek ne kàddu yi dina dina amaat njëriñ ci ñu koy def ndaxte je pense que danger bi moom léegi pratiquement ñëpp xam nañ ko ñiy toog ñoom ñoo gën a xam ne li ñuy def c'est vraiment en danger waxuma la dara mais feebar yi ngay lim maarade taali bu la dalee nga miraas sa bopp miraas sa njaboot amaana fa muy mujj du neex ñu lay jaajëfal bu baax a baax. fii ci Mamel. Hmm. parce que mu mel ni publicité. non du publicité professeur. santé santé hmm. international boo xam ne bi dama dem uti ji ay partenaires. Hmm. ñu ñëw def seen cinq milliards ak dugal ko ci biir. ñu def fa matériel boo xam ne bi amul fenn amul Algérie amul Maroc amul Tunisie. ba ñu ko tegee fii Sénégal muy technique traitement boo xam ni bii cancer ba fa mu nekk la koy euh, rey asséché ko te du laal la ko wër donc muy radiothérapie boo xam ne bii amul effet secondaire mm-hmm. donc kooku wax dëgg yàlla ñu indi ko mm-hmm. te ko fii Sénégal mm-hmm. muy jaar un cinq fois moins cher que boo demoon France defi ko te boo demee France itam 30 pour cent yu centre yi ñoo am jumtukaay bu ñu mel lu ni mel nag ñama ma àndaloon def nañ ko Rwanda. def nañ ko Lomé Togo ña nga cay def ñaar Éthiopie. man ak maa ngi xeex pour fexe ba lii ma def Ndakaaru war a mën a egg Ndar. war a mën a egg Ziguinchor. tànga waaw na na ci réew mi. ci biir réew mi. Mhm. wax dëgg yàlla. bonne chance ñëpp ci war a jàpp. et je crois que bis moo ci gën a garaaw. woo nañu balaa may jeexal loolu laa fa mën a fàtte. merci beaucoup euh, tox yàmbaa moom ak cigarette ñoo bokki mbiram. bokkuñu àtte. waaw ah. léegi saay-saay yi nga xam nga lu ñuy def. Hmm. dañuy fab. ci biir cigarette électronique mm. yokk ci nicotine ba pare daal di ci yokk THC ak CBD mm. ñaari dérivé yu yàmba la ñu jël daal di koy li daf ko mm. ndox daal di koy dugal ci biir cigarette électronique bi gone yi di ko laal fii almadi gii oh ñoom ñaar jàpp ci ñeenti nit ay waay ñoom ñaar bu ci gën a dan bu ci gën a ci gën a danger cigarette mën na la rey léegi nii mën na la rey dans vingt cinq ans non seulement mën na la rey léegi nii na la dofloo balaa mu lay rey. mbaa mu dugal la kaso. waaw waaw jërëjëf jërëjëf. gis nañ ci c'est compliqué li nga doon wax xajul plaidoyer bi xajul ci benn émission xam naa dañuy ñëwaat beneen yoon merci beaucoup professeur Abdou Aziz euh, Kassé mu nekkoon suñu invité léegi-léegi ñaari yéene kaay groupe Futurs Médias muy l'Observateur ak Record